jërëjëfate Serigne Touba sëñ Muntaxa Bachir yal na fi yàgg te ànd ak wér asalaamaaleykum mbokk taalibe Serigne Touba maa ngi am mbégte lool sama teewaay fii tey ci wetu sëriñ Mouhamadou Bassirou Mbacké ci ndigalul xalif bi ñëw fekk ci jawrin sëriñ Mbackiou Faye fekk ci fi imam Bassirou Lo fekk ci fi mbokk taalibe yépp ci jumaa ju ji di jumaa Masalikul Jinaan ñëwoon naa ci ubbi tëgi waaye nag tey laa doog a gis jumaa ji gis taaram gis dayoom muy fierté ci képp kuy jullit ci Afrique jumaa Tuuba doyoon na misaal waaye lu ko jiitu jumaa Njaareem dañu ko taxawal juma tuuba ñëw ci Afrique nekk juma ju fi gën mag waaye masalikul bi ngeen def fii ci xolu ndakaaru jëf ju rëy la kon nag ñu sant xalif yi ñu ko sumb ak sëñ Muntaxa bi ko mottali ba jox ko taalibe yi ñu sant jëwrin Mbakiyu Fay ci taxawaayam lu bare ci liggéey bi ginnaaw sëriñ Basiru Mbakke bi nga xam ni moom lañu tegoon liggéey bi ci loxoom lu ci bare ci yow mi sëñ Mbackiou Faye xam naa lan ca def xam naa lan ca daj kon nag ñu ngi lay sant di la gërëm waaye sëriñ bi moo ko mën a waxal boppam en tout cas ñun état du Sénégal sant nañ la gërëm nañ la sant nañu mbokk yëpp ak jëwrin yëpp sëriñ bi dinañ dem ci xalif bi léegi ñu demee nga santal ñu ko itam tax lii du liggéeyu caaxaan ku am yéene dëgg mooy mën a taxawal jumaa jile te taalibe murit am nañu yéene dégg nañu ndigal mooy li nga wax léegi kon nag jërëjëf seen taxawaay yi li ci des mooy li ma la wax liggéey boo gis saa yu ne dañ koy yokk mooy li ñu wax ci poste de santé bi tax jumaa ji tool nii mbooloo mi fi ñëw ay docteur war nañu fi nekk en permanence laaj naa lay ndox am na morgue kon loolu dinaa ko gàddu mu nekk sama contribution pour ñu defal leen morgue ak bërëb boo xam ne fa la defaree way dawlu yi loolu sëñ Basiru ci kàdd yu gàtt ndax waxtu waa ngi jot te dañu war a dem ci sëriñ bi moom laa bëggoon wax di nuyuwaat mbokk taalibe yi di leen sant di leen gërëm wasalaam